ñu ñëwaanoon njaboot alaaji Mouhamed Ndiéguène yëpp te lu ko ne ni ciy cëram da ko daan génn joxe ko tabaarakallah ñu ne ñu ku si wuuti yàlla dañu suturaal ñu koy def ba tey yàlla dogal na nag wàllu sëriñ yàlla dogal na nekk fii waaw waane yaay toogal ah? toogal waane comme yàlla dogal na te bu moom nga waane nga nekk ko jege lool ñu paat li nga xam ne ak mu jot sëriñ mu niiru doo daan jot ak imam alaaji ahmad baro papa Ousseynou Serigne Cissé ak ñëpp njaboot gépp daal moo tax nii ma ne comme Serigne bi nekk fi ñu koy ñaanal wér amiin ñaan mu si amiin waaye mu delloo si ak ak bakkan amiin ak wér ak sutura ci kanamu njaboot amiin amiin tey suñu gàmmu neex na maa ne neexul ndax bu ñu sañoon dañuy ger su gis ko ñëw indi ko comme ni ñu daan sukkee ci kanamam waaye jàpp ne na moo nii ba tey fàtte doom mais sëñ xol la xam nañu sëriñ bi ni nga mel ci moom taalibe bi si moom moo tax lii ñu nga teraanga yi comme moom moo ko daam dépp mu tey dañ la koy indil soo bii mu dégale def moom maara comme moom boo fi nekkul moom lañ ciy fekk ñu ne moom lañ koy jërale marabu waaw marabu moom assisé ndax maire bi sax la ñuy seet ñu ñëw fii la ñuy fii laa nekk moom ci bu la wóor wóor marabu du ñu toog buus gi ñun bu raakale def waaw moom alaaji comme sa doom suñu sëriñ la suñu doom la moom mu féetoo loolu daal mooy tànk yi waaw mooy tëb muraak waaw kon loolu daal mooy tànk yi ñu ziare si yeesal suñu taalibe yeesal mbokk nga ñaanal ñu yàlla ba nga xam ne lii mag ñu bàyyi suñu loxo ñu gën di ko mën ndaxte ñoo si gën a ñooy caatu góor gi waaye ñun la ko bàyyee ba tabaarakallaa ñu daan ñëw di ànd ak comme ñii nañu tolloon boobu donc kii sama jarbaat la alaa jàpp ma doon lañu tuddee kii sama jarbaat alaa jàpp ma lañu tuddee kuñ ko tuddee alaa jàpp ma tuddee est-ce que alaa jàpp ma alaa jàpp ma borom sa sœur bi nu mu tudd su ko defee moo tax xale yi ñu am jawat di leen indi su leen gisu ko góor gi ñu fas yéene di ñëw ba tey kon du ñuy ñëw dañuy def le tour pour ñu ñëw ndax ëllëgee xamuñ tey la xamuñ ëllëgee yàlla yër bu ñu gisul ñoom ñu mën di ñëw daa nga ñaanal leen ñoom tamit ñu jub waaye dañu barkeel nga xam ne bu ñu gisee bu ñu gisul kër gi ñëw ñu mos di ngëj daal sëriñ bi mooy càng bi tey ziar si daa nga dem ñu jëm si kàddu yi ñu waroon ko ci kàddu yi ñu bokk la sama jaar xale yi ma dëgg yàlla. Mm-hmm. bu ëmb yëkkati si ñoom asamaantaat. xale ko ko jox. ñu ngi koy jugee jaay. mooy saw moo sën ak xel day nekk si moom. waaye ñun ñuy soxla la rek. ñu nekk yaa ngi boole woon. waa ni yàq si dara. ñu ñëwee fii dañuy wéttali ko ba bu ñu ñibbi lépp loo xam ne xel dara bi ñu ko jox. xam nga si dara ñu fi nekk xam nga si dara. loolu loo nit boo boolee moom yàqu si dara waaw nit ñuy jàppale ci zaay ñuy jàppale ci baati sëriñ ñu ngi kontaan bu baax a baax ngi kontaan bu baax ñu ngi kontaan ndaxte démb rek am na ku ko wax du mam àllaaji léegi macha allah tour du monde waaye nag wax dëgg yàlla ah la daal am sax ragal amul hésité bu ma ci yegg rek ci yow loolu loolu nañ ñu siy sant bu baax tey fu ñuy jógee nag du ñu laajte sax parce que macha allah réseaux sociaux yi boo si dugg activité bi yëpp da nga koy am YouTube noonu direct yeeg lépp kon tax na kon tur moom alaay fu muy yegg rek santam ba yegg na santam ba mooy suñu sant kon ñun yegg neen foo xam ne suñu jëm kon tey bu ñu ko xam suñu suñu ñu lay ñaanal bu baax dana yàlla barkeel la barkeel la yaakaar naa am si yàlla ko yàlla yaakaar si lépp yàlla ko yàlla dëggal loolu maa ngi yeesal daal suñu bopp ñu yeesal suñu taalib ñu yeesal suñu xaritoo ñu ku la sopp la waaw ñu sopp la am nañ si daal waaw ndaxte dégg ne say wax gis nañ ñoom démb rek répété nga une fois tax te loolu ñun loolu ku la sopp ndax dañoo séerante rek waroon nga gis ñu mel ni ku ñu gisul loolu ku la sopp rek moo koy def kon nag njëriñ yàlla taxawaay bi yàgg yàlla taxawaay bi yàgg asalaamaaleykum. alhamdulilah alhamdulilah. sëñ Ba ñu ngi lay delloo ziar di la daal bu baax di jëflante ak yow day day neex lool. loolu laa wax sax ne ko yow suñu suñu xarit nga suñu lépp nga yow it damaa taxawee ci taxawaay boobu xam naa dañuy gën a ci wàllu safina incha allah waaw ci say kàddu dégg nañ ci vraiment li nga waxee ku ko gis rek xelam day dal ndax yaa ngi yeesal doxu mag ñi démb ci maam Alaaji Awa ba ci maam Alaaji Mouhamed ba ci xarit suñu biir waaye tamit ci biir tàng gis nañ ci nga def ci tàng boo xam ne tey la donc loolu day wane ni tamit tey euh, démb rafetoon na waaye tey rafet na waaye yemoo ci tamit improvisé na li nga xam ne moom mooy suba ndax booy def tàngoor boole ci maamalaay boo xam ne donc tamit fas yéene woo bàyyi yaa ngi sóobu ëllëg tamit muy lu am solo di bàyyi xel dañuy wax ni euh, mbokk ñett ñett koy dox te ñett yëpp benn du ci am kaw muy làmmiñ tënk loxo ak bu tàng donc wax wax ju rafet ci la dëkk. te bi ci gën a jafe ngay def mooy di ko def à distance ba pare ko def ci réseaux sociaux loolu mooy seen saytu donc ça pour que ñu mën a wax dëgg ci loolu. benn bi ci topp mooy tàng dañuy tàng ñu ko wóor. beneen bi ci topp tamit mooy distance bi def Kaffrine Thiès bu ko mën a def ah, ah du ñëw loolu moom loolu bu ñu déglu seen xaw ma ñu donc kontaan nañu bu baax a baax a baax beneen wàll bi mooy Safina ni ñu dooleel ni ñu ëppalee yaatal liggéey bi. nga bokk tamit ci ci ñu comprendre message bi waaye nga xamante beneen niveau ndax comprendre message bi daanaka yomb parce que suñu réew mi ñëpp xam nañu mooy ñetti verbe yooyu aimer euh, suivre et servir ndax ci loolu lay dox. donc lu ñuy def ñun ñëpp ñëpp xam nañu ko mais nag li jafe mooy nangu te yow yàlla boole na ma nangu moo tax tey jii nga am modestie si kaalawu kaalawu bu bett di tasaare lu dul foofu donc loolu ñu ngi ci euh, ñu ngi gërëm bu baax ñu ngi soog suñu am ci wàllu nga ci kër yi taalib bu ko daan ne peeru canal waaye ñun bu ñëw oto bi nga dem indi ñun ñoo ñëw dama jël sa plan mën a xale yi oto daayira bi ñëw ñun ñoo ko fàtte waaye incha allah ñaanu paas yàlla dinaa ko indi dina la fekkee ak moom incha am ci doom may na la peer waaw njabootam yëpp góor ak jigéen waaw ak ni mu indi fii peer boobu bi dafa kéemaan la ci yàlla def ndax li mu juróon ci ay doom li tottal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dañoo dund benn deew maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax kanaaram googu waaw ñun ñëpp lañu ci ginnaaw foofu ci waay mi wala nekkoon sama yaay bi sax mujj na caa am yu bëree bëree bëree waaw donc xam naa ni kàddu yi du bi ah, euh, mu ci tuddee bi mu tuddee sama waaye nag dafa tudd sëriñ la ñëwal toog def lii yëfi mag la mag la moo tax ma jël sama temps ba jeexal li ma doon lijjanti yëpp soo ko toog wax ak lu ñuy dagg maam alaaji dafa bëggoon mbokk dafa fonkoon mbokk te lii dafa rëy. gan yi fi ñëw démb yëpp baax na waa Njuuxaan rafet na mais kii jógee Kaffrine kan ma ko mën a fayati ñaata gàmmu la romb. xanaa ñoom sax su leen neexoon woote seen gàmmu foofu. am nan lay. te du ñu wowoon suñu munir ne ko dañoo bëgg a gàmm mun leen gàmmu leen da di may ndigal parce que seen maam ak El Hadj Baro. ñoo bokk benn baay muy Modou Ndiéguène Samba Maram moo jur Abibu Abibu jur Alaaji Ahmad Baro mu ko moom mii Samba Maram moo Abibu Abibu jur euh, maam Daam moom la ñu wax maam Modou mu jur mu jur soxna Safiyatu mii kon ñun ñoo bokk oh. maam Alaaji xamoon ko nag fonkoon euh, bokk na ci yim daan njëkk a toppatoo ci gàmmu bi mooy waa Saalum man xam naa ci lu bëri enveloppe la leen wutal spécial minute bu jot tamit mu vérifier ndax añ nañu ndax reer nañu ndax ndékki nañu chaque minute da koy toppatoo suñu gàmmoo ba ci fajar gi su jugee waa Saalum nañ njëkk a yeewi man xam naa ci lu ndax fekk naa ko ba donc nag ah, dañoo wax ne coloré bi wéet moo gën guy màtt te waxi ku dee du saxee. ku dund moo ko moo ko saxal dëkk bi yëngatu na nit ñi léegi xamatuñ seen bopp ku nekk lañuy ñuy dugg mais su leen neexoon riir ma nekk ca Kaolack nekk ca Kaffrine nekk ca nekk ci Sénégal yu bees yi ngeen dugg ca kan moo leen mën a téye vous libre ku nekk am nga droit dem fu la neex dem gëm ku la neex waaye nag dañuy wax ne kuy wàll yaan daa fekk da ngaa tëggul ndax am na sant yoo xamante ni ak askan yoo xamante ni ku ca bokk da def attention ndax sëriñ boo mën di dem tamit balam laa bala mooy nangu nga toog ci suuf dina la dina la dina ba pare nga xam ne doxul xam nga li bëgg wax bala muy xam ndax taalibeem nga wala doo taalibeem dina def attention bu baax xam nga li bëgg wax foo mënti dem doon nañ njëgeen da naan la bismillah toogal ci kaw su ko defee nga ne ah man kat sëñ bi man taalibe laa ñu soog laa bàyyi suuf kon kay problème am na dégg nga léegi lox mhm. waaw noonu la demee nag moo tax li cëpp léegi koo ñu koo nuyu ci gaa yi danaan la ban njëgën la ah war nit day xam boppam te sama maam dana wax ne sama baay dégg la ci déggu yàlla yi si dégg la ci déggu yàlla yi waaw mu ne ku ku dégg jam sa sa doxin day soppeeku de. mu ne sama baay Alaaji Ahmad Baro sama maam Madun dégg lañ ci dégg yàlla yi noonu la ko daan wax waaw kon nag koo leen gëmu gëmu leen de parce que ngëneel du dara la ak ragal yàlla te seen maam yi ci rek la nekkoon képp ku topp yoon woowu tamit da nga sa àdduna dina baax sa àllaaxira dina baax.

dara fukk ko dara yëngal ba mu demee ba xàmmee tamit dellu si na ci ay bokkam su ko neexoon ni woote leneen wala mu def leneen wala mu nekk ci ay waaye dafa ñëwaat jàppaat kilifa yëpp jël ci wér di doxal li muy doxal teewul li muy dox ci àdduna am koy dox politicien bu mag la day laaxal politicien bu mag a ngi <laughs> politicien bu mag a ngi fi ne nii waxtaan wi neexul ndax tuddagul Macky Sall gis nga yii mu yii mu def nii sax Macky lay jéem a jàppale nii <laughs> fi ne doo tuddul Macky waxtaan bi du neex waaw. waaw dégg nga ma dégg ma naan doo tuddul Macky kañ tudd naa Macky yaay <laughs> façon la rek bu damay politique comme moom <laughs> donc euh, li ma bëgg a wax mooy xam gim xam boppam fonk gim fonk boppam te yàqal ko ci àddunaam dara ku ko gis jox ko ku ko gis respecté ko ku gis fonk ko def na interview bu garaaw ak Makhtar monde bi yëpp ko seetaan mais mm-hmm. euh, bi muy tàmbali nit ñi xamuñu ko mais ci biir waxtaan wi la ñuy gis niveau ak xam-xamam ak yaram ak tegginam mm-hmm. sa sa bàyyi dafa baaxoon bëgg moom alaaj bi fonk ko doyloo ko ndax maam alaaj tamit dafa amoon orma ci seen maam mm-hmm. am na ñu bëri fii moo leen jox kii bàyyam nekkoon premier yilimaan ca Dubaay Qatar nit ku baax sëñ daam ku sell mokkal alquran baat ba neex mu ñeme mu ñeme alquran daf ko ñeme maa la ko wax xam naa ko bu baax <laughs> doogu astafurlah moo ma ko a jox daf maa gis may may wérde mu ne ma looy def nii ma ne ko astafurlah laay def mu ne ma ma ko mu ne ma ñaata ma ko man damay sikkar rek ba doyal la mu ma assirru fil adadi moom ko wax loolu sa papa assirru fil adadi mu ma mbot mi mo ngi ci sek ci lim bi mu ma affaire bi du ci kar lu bëri lim la tia bi day amay ay bëñ mën a ubbi mu ma lim la rek ma ko am mu ma waaw ma legui del def naata ngay def ma ko fune ni man lu mu bon bon def na 12000 wala yu dem mu ma dedet stop na lim ma jox matul sax junne juroom témèr ca la yem waaw ne ma yemal ci li nga xool pap papa moom xam ko bu baax soxna soxna nañu si ji na nga na ngeen xam ni seen mbokk ngeen fekk si te lenn rek mooy am de mooy nit ñi ba bañ leen xam parce que dafa parce que day xat la mais ku xam fi ngeen xam rek jeex na parce que fii tamit maa walaaj noonu la yore ya nit ñi bëgg sa mbokk bëgg waaw kon nag njëgeen moom as jërë ngeen jëf ah yàqoo leen ci dara rafetal ngeen lépp vous êtes l'honneur de la fami te ñoo ngi ñaan yàlla def leen jant fa ngeen nekk nag ba li ngeen bëgg a liggéeyal bi yëpp ngeen liggéey ko te dina am nag ndax seen maam mënul moom ñun tey jii du nekkuloon mission El Hadj Ahmed Baro ca Saalum boobu la ñuy dëkk fa la juddoo mission rek moo ñu indi fii yéen tamit mission moo delloo seen maam ndax seen maam góor gi récupéré woon ko mission moo ko tax mu yebalaat ko ne a demal jumaa ja kon yéen l'islam rek moo leen yebal foofu comme ni ñu yebalee fii yal nañu yàlla boole dimbali doole xéwali bépp bépp pepp cere bu ci nekk yàlla nekk yokkute ci ñun ñëpp zahiran wa batinan waaw kay euh, gerte gi noonu mu mel ci dang ak dëgër yal yàlla sàmmee ñu noonu musal ñu noonu ba dara du yegsi ci ñun muraaka mi ni mu neexee yàlla na su dund neexee noonu barkeele noonu waaw lii rafet mu ne alaaji mu niru moo moom mbedd bi bii Abdoul Aziz moo ko moom moo fi nekk bii mu ne maam alaaji sama doom loolu foorul mhm. ah loolu foor na xam nga lii xel la mënoon na ko jël xëpp ko fii dem yoon waaw ah, wala mu dem yóbbu ko feneen dara du ci nekk waaye yii dafa rafet mbokk dañ koy rafetal dañ koy neexal yii mooy neexal mbokk waaw jërëjëf jigéen maam As dama ne ñëw ci Saloum Dior Fass bi topp yàlla yàlla fay leen yiw yokk seen i ak seen sutura gars ñëpp bëgg nañ la waaw bëgg nañ la soxna Sabir tamit léegi bëgg bu baax te moom daa niroog papaam ci allah ah yal na yàlla dolli jàmm moo nga comme timis bi jot na dafa mel ni lépp leer na du dëgg jigéen maam As yal nañu yàlla gën a dimbali hmm? nga yàgg nekk jant di di ñu jàppale li ngay bëgg yi tamit yàlla teg ko solo ko li nga ragal yàlla bëgg gis yàlla musal la muccal la mosal la waahiran wa baatinan ba at mu jot nga koy gën a mën balaa gàmmu ngay ñëw sax balaa weeru gàmmu gi yow nga jekk ba defar say fukki téeméeri booli incha allah ba am say oto yow ba indee ànd ak sa say kaar nag ñëw waaw yàlla yàlla defal la fàttali sa loxo bii waaw yàlla na yàlla defal da nga ko jox loxo rek lépp leer barkeel ko barke sa fat yàlla ko yàlla def barke Cheikh Tidiane allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله رب العالمين رحمة هنا يرسلوا